Assane kon fi ñu koy mujjee rek pour bàyyi ko mu noppalu ndax boo xoolee def nañu waxtu ak lu lu teg lu bari lool euh, dañu lay bàyyi rek Assane nga mujjee kook ensemble bi lan nga ko ci bëgg a laaj. Mm-hmm. Mm. waaw Ousmane ensemble bi lan lañ si mën a xaar ak koo gis ni war na faa mën a dem doxal ko ak luwaa yi nga xamante ni li si ëpp gars yi di ko wax mooy loi bii ñu naan loi góor jigéen ñi xam nañ ne bokk si yi nga xamante ni dinañ ko wote yow ndax gis nga ko agit boo leen doon wax si mbir yi góor jigéen ñi lan nga leen siy wax. ndax sonal nañ ñu si de Sénégal. gis nga ñi ñi leen di wax mbirum góor jigéen dañ leen yàq. Hmm. man dama xam ne yow nga toll ci réew. amoo loo lekk amoo loo naan tey pause dara new ci. hôpital yaa ngi rajaxoo école yi taxawul tali yaa ngi wëlbatiku nit ñaa ngi dee nga dem taxawi assemblée nationale lëmm nga ne yow li fay njëkk wax mooy mbirum góor jigéen. Hmm. Hmm. est-ce que loolu du yàpp sénégalais yi. man loolu ñii buñ ko defoon maay njëkk dal seen kaw Sénégal li mu méttee dañu voilà lu waa góor jigéen dina ñëw parce que bokkul ci culture ñun du ñu ay góor jigéen ñun góor ànd ak jigéen lañu xam jigéen ànd ak góor d'accord ñu ay mbirum góor jigéen li jëndiwuñ ko mais Assane man lekkuma yow lekkoo ñun naanuñu nelawuñu xamuñu fan la ñu jëm suba nga ñuy wax ay mbirum góor jigéen. vraiment gerte gaa ngi ne jàkk. Ousmane béykat yi ñu ngi dee. Ousmane ñu ngi ci lopitaan yi lépp jaxasoo. Ousmane sàcc yaa ngi daw li gën réew mi. nga bëgg a dem taxaw assemblée nationale. nga ne yow da ngay voilà man vraiment góor jigéen voilà rey leen jàpp leen dugal leen mais c'est du n'importe quoi. Ousmane loolu xam nga. xam nga lu tax xam nga lu tax ñu leen di dugal ci lool euh? xam nañu ne société lobbying yu gën a mag ci mbirum ci àdduna bi. ñiy joxe xaalis ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yëpp góor jigéen leen rax. léegi nag gis nga boo njëkkee xeex góor jigéen mooy xaalis dootul dugg Sénégal dara dootul dugg balaa ngay laal mbirum góor jigéen. Hmm. tegal say atu yëpp ba mu hmm. tegee lépp ba mu réglé. Hmm. bu boobaa leneen looy wax nga wax. gis nga bu ñu leen piégé ba ñu dugg ci mbirum góor jigéen. te fekk rek gu ñu dara mais daal dootul dox. mais yow xamuloo ne ñi ëpp doole ci àdduna bi ay góor jigéen lañ xamuloo la. xamuloo mais pourtant est-ce que xam nga ne président Amérique bii Donald Trump moo gën a bañ góor jigéen ci àdduna hmm. foofu foofu dégg naa dañ ko aaye ah waaw foofu dañ ko aaye crime da ko aaye da ko moom nekku ci mais xam nga boo nekkee ci ab réew dafa am ay priorité choix hmm. dafa am ay mbir yoo xam ne mooy priorité am na loo xam ne nag diñ ci yegg diñ ci yegg mënoo cee bañ a yegg parce que ñun diine gi ñu nekk àndul ak mbirum góor jigéen dem nañu sax ba ci yonent yàlla yi yonent yàlla luut boo xam ne yàlla dafa mbugal population lëmm ndax mbirum góor jigéen donc ñun xam nañu li ci góor jigéen mais nga defee ne ñun tey yàlla nit ñi lekkuñu nit ñi naanuñu nelawuñu l'hôpital yi dara doxul nga ne yow man damay dem assemblée nationale lan laay def damay njëkk wax ci mbirum góor jigéen daal loolu mooy li ma loolu yëpp daf la comme démb bi ngeen déggee président di wax ci mbirum armée français c'est parce que dañ ko laaj question bi nga defee ne Ousmane Sonko ak Diomaye li ñu njëkkital mooy dem assemblée nationale armée français génn leen Sénégal loolu la njëkkital mais am na ay choses yu sérieux ci Sénégal nit ñi lekkuñu naanuñu nelawuñu loolu mooy urgence dañuy dem xool passé budget ah budget xaalis dugg ci réew mi ñu injecté xaalis ci business yi xaalis bi dox réew mi dox loolu mooy priorité leneen li boo ci jógee nga teg mbirum justice bi haute cour de la justice bu gaaw nga indi atte yi leneen li nga changé comme ni ma la ko waxee hôpitaux yeeg lekkool yeeg ñoomin seen loolu xam nga ñëw na ak budget hmm. loolu yëpp nga teg ko ci yoon ak yoon yi infrastructure bi nga teg ko ci yoon pour réew mi mën a dox bu boobaa nag yekkal ci boo jigéen bu la neexee sax nga wax ci mbirum sëy bu la neexee nga ne kuy takkati jabar xoolal ki ki gën a jool wala ki gën a gàtt loolu sa problème d'accord parce que assemblée lu ko neex mën na koo jàllale mm-hmm. mais nag ba laataa ngay laal ay mbirum góor jigéen wala lii da ngay xool prioritiser mm-hmm. bàyyi asan mm-hmm. waxtu julli bu jotee ah, waxtu julli jot na nodd nañ ñu nodd ah. añ pare nga xiif ba doo gis Mhm. lan la lislaam wax nga njëkk rek. lekk ba regg rek. ah waaw léegi yow nga dem assemblée lislaam ne la la nga lekk ba rek nga ne yow déedéet doo lekk yow da dem waxi ci mbirum li ngay wax li ngay waxal duñ la dégg. sénégalais yi ngay kon nag duñ da nga ñi leen di xeex gëmuñu liñ leen di xeexloo mais dañ leen a bëgg a piéger. da ay piège la gëmuñu mooy Ousmane gëmuñu ko de. Ousmane. pièce la de. gëmuñu ko bu fi Macky Sall nekkee. bu fi président Macky Sall nekkee. bañ na sax bu ñu daan campagne dañuy wax naan képp ku woteel APR yaa ngi woteel góor jigéen ñi woteel leen ñu bu ñu demee dañ koy crimage bu ñu demee dañ koy crimage far Macky am maturité bu ñu jàllul bu fi Macky nekkee loolu mais dañoo seetlu bi fi ñuy ñëwee. boo naan ay mbiri góor jigéen nit ñi dañ lay jéppi quoi boo nee dañ lay. non non non non non non non non non non non non ma ne mbaa yaakaaroo ne man mii tey li nga wax mbirum góor jigéen di dama la see jéppi tey laa la gën a bañ. Ah, du yow dong damay seetlu naa ay nit. déedéet déedéet wala Cheikh Baara wuy ma na du ko wote. nee na ànd. Ah, déedéet loolu bii. ñeneen da ngay wote da ngay wote. non Cheikh Baara xam nga moom bu dee da ngay wote xam nga xam nga non du du du non xam nga Ousmane am na lu mu waxoon. Hmm. ci mbir moomu xam nga lu mu wax. Hmm. mu ne mbir. Ousmane laa wax de waxuma Ousmane Tounkara Ousmane Sow hmm. mu ne nit mbir balaa nga koy voté hmm. indil ay leeral ci mbir mi ba pare nga kaw hmm. xam nga góor jigéen danga koy definiir xam nga am na ay nit yoo xam ne tey ñun ci suñu société xaw ma ndax yaa ngi ciy bàyyi xelam de. dañoo juddu jigéene. man nañoo romb ci mbedd donte duñu ay góor jigéen mais comme dañoo jigéen la ñu romb ñu daal di ne góor jigéen a ngi nii duma mu dee loolu nit ñi dañu war a bàyyi xel ci loolu mhm. ñun société yépp la du sénégalaise rek mhm. da ngay dem ci ay kër yoo xam ne dafa am nit ku fa ne ku nooy ku xaw a jigéen yenn saa yàlla defar doomu aadama sax ba mu am ñaari awra mhm. benn bi faible benn bi gën a am doole ñu ne la bi gën a am doole utiliser ko beneen bi nga éliminer hmm. mbir mi dafa critique de ah. dafa am ay science yi ci nekk aussi du ay tënd mu marajax boo gisee dëkk yu bari duñ ko nangoo paase hmm. c'est parce dañuy bañ a rey koo xam ne lu góor jigéen ci turu góor jigéen hmm. donc lu bari moo ci ne donc tey boo amee justice su Macky Sall bu jubali bii moo fi ne ba léegi nga am loi yu jubal yi nga xam ne tegoon nañ leen yàq réew mi ak xaalis beeg ñoomin seen nga dem passé fi ay loi góor jigéen ñu jàpp fi même policier Macky Sall yooyu ak même juge Macky Sall yooyu pour yàqal turu Sonko pour yàqal ñoom Sonko ñu fi condamné ay nit di fi def ay ñaawteef pour bitim réew ba ñu dugal xaalis Sénégal nga defee ne loolu intelligence. dëgg du intelligence de <laughs> donc lépp looy def. da nga koy saytu ba mu leer nga passé d'accord bi ñu doon na nag nguuru Macky sàll bi bari na boo ko wotelee woteel nga ay góor jigéen nga jéggal ma ah mais député yooyu dafa bari woon sax ay ay ay deux pire pire pire sax dafa bari woon <laughs> dégg <laughs> nga député yooyu dafa doy waar de lu leer laa lay wax am na solo diit waaye nag dama koy yebal <laughs> jërëjëf am na am na solo am na solo vraiment ñi ngi lay sant baax Tunkara di la waxtaan wi sax euh, vraiment sénégalais yi doyalu ñu waaye nag euh, am nañu waxtu ak lu teg daanaka ni ñaari waxtu euh, nga nga daal di ñuy accordeel vraiment temps bi te yow ku la jëlal temps ku xam Amérique ak ni mu mel ak seen hmm. liggéey bi xam ni ku la jëlal ñaari waxtu hmm. jëlal na la temps bu baree bare baree baree bari